mbas mi lëmbee àddina wërngal këpp di coronavirus gis nañ ne jamono ji kaay yi ma ngay gën di yokk fii ci réewum Sénégal ndax tey bu ñu sukkandikoo ci résultat bés bi la mu xamle rek mooy ci junni ak fukk ci ay test yoo xamante ne nii amal nañu ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir loolu juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñett nekk ci ay cas contact ñaar ñu am ko ci ay cas importé juróom-ñeent nag transmission communautaire nekk kaa yi nga xamante ne nii moo jaaxal loolu àddina wërngal këpp ci gox yi nga xamante ni nii kaa communautaire yi feeñ na ca bokk na ca sacré kër am na ca benn pikin am benn benn tali am benn Yoff am benn HLM 5 am benn Cambérène benn Kër Massar benn faas benn Colobane am na ci benn kaa kon nag cas communautaire yooyu la nga xamante ne ni am nañ ko ci bësu tey bii lépp rek ca diwaanu Dakaaru foofu la rek daal di feeñee Sénégal am na lu toll si fukk ak ñeent ci ay cas grave bu ñu sukkandikoo rek ci ki nga xamante ne ni moo ji doon indil résultat bës bés bi. Sénégal bi fi mbas mi duggee ak léegi cas yi mi ngi toll si ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar moom lañu am positif ci réew mi ci biir loolu ñaari junni ak juróom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nañ ci ñeent fukk ak juróom génn ci àdduna li saytu nag ci lali hôpital yi ñu ngi toll si junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ba tax rek ministre bi di gën di ñaax askan bi ñu gën a respecté loolee nga xamante ni moom la ñuy wax mesure barrière yi ngir xeex bi mën a gaaw génn fii ci réewum Sénégal. ci mbas mi lëmbee réew mi comme ni ma ko waxee léegi ci la ñuy daal di ndax gis nañ meeru Géejawaay si fan yi ñu génn testé woon nañ ko mu daal di positif ak jabaram ci coronavirus bi nekkoon ci hôpital dalal jàmm daal di nay wér jamono ji buñ sukkandikoo rek ci laas moo ñu xamal ne fi mu nekk nii Alioune Sall ak jabaram joojulee wér nañ lool ci Covid 19 bi nga xamante ni nii amee woon nañ ko niki fan yi ñu génn. ci diwaanu Touba la ñuy jubali la ñu fa nemmeeku rek ca hôpital Matlabul Fawzayni ci guddi guddik samedi jàpp dimanche euh, benn patiente bu fa faatu ci coronavirus bi waa këram daal di nay bañ sapeur pompier denc ne boobu buñ sukkandikoo rek ci protocole sanitaire bu hôpital boobule daal di nay xamle ne seen néew boobu deewul benn yoon si coronavirus moo tax ñoom waa kër néew boobule daal di nañuy jël seen néew dencal ko seen bopp waaye famille bi rek dañoo daal di gis ne néew boobu ñu leen jox. ko nekkul seen néew ci lañ daal di jubaliwaat fële ci hôpital Matlabul Fawzayni ci tiroir yi nga xamante nii fa la ñuy denc néew ba daal di fay gis seen néew mu nekk ab erreur bu metti boo xamante ne nii gis nañ ko ci néew boobule ndaxte dañoo joxe néew boo xamante ni nii ay famille yoo xamante ni moomuñ ko daal di ne waat néew boobu dafa amee coronavirus mu daal di jur coow lu rëy ba tax jamono ji kenn xamagul lan la waral boobu boobule njuumte dañuy daal di bàyyi rek lépp loo xamante ne nii ruusandi waat na ci jëm ci mbir 24 actu dina leen ko toppal ba xam lu waral boobule erreur ba tey ci ñombe yi nga xamante ni mi ngi am ci réew mi ci la ñuy daal di desandi dañuy daal di jubali rek fële ca Liberté 6 lañ fa fekk rek ci ab benn ñombe lu méttee méttee benn militaire bu civil moom lañ fa daal di rey benn taximan rek moo ko daal di faat foofeele buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di tribune jamono ji nag dañuy bàyyi rek ba xam lépp loo xamante ne nii ruusandiwaat na ci jëm ci boobu la ñombee dinañ leen ko toppalaate ci suñu yeneen ëtt xibaar Abdou Aziz Kébé di jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci at gi buñ sukkandikoo rek ci ab waxtaan bu mu doon amal ak waa E-Media daal dinay xamle ne amul benn yoon coppeeku jëm ci ajug ren gi ndax buñ seetloo ne gouvernement bu Sénégal ñoo jëloon dogal ngir dàqandi aj googule bi coronavirus duggee ci réew mi ndax gis nañ ne jàngoro ji day bañ lépp loo xamante ni nii rassemblement la ñu gis ne nag aj da daan fees lool bëri ay nit lool ba tax rek ñu bëgg a éviter loolu nga xamante ni nii moo di law ko jàngoro ji ba taxoo ñu daal di dàqandi woon at gi jamono ji nag gisaguñ nag ne dinañ ko bàyyeem déet ndax gis nañ ay changement yu bëri yoo xamante ne nii am na jëm ci dogal yooyee nga xamante ni jëloon nañ ko jëmee ko ci jàngoro ji di Covid 19 buñ sukkandikoo rek ci Abdou Aziz Kébé moo ñu xamal ne ba léegi sii rek ne aj gi mesure yi nga xamante ni jëloon nañ ko ci ba léegi rek moo ci daal di nekk. ca diwaanu Vélingara la ñuy daal di jubali ndax gis nañ la tey ci altine ji bi ay secteur jotee taw nañ seen taw bu njëkk mu daal di nekk rek ab signal jëmee ci ñi nga xamante nii moo di baykat yi ndax ñoom taw rek la ñuy xaar ngir mën a def seeni activité buñ sukkandikoo rek ci ñuy saytu lépp lu jëm ci jaww ji nee nañ nawetu ren bi dina neex lool ba tax rek nekk na loo xamante ni dina doonu mbégte jëmee ci ñi nga xamante nii moo di baykat yi buñ sukkandikoo rek ci ëttu boobu boobule di dakaar Buzz ñoo génne yooyu les informations dañu koy jeexal ak ki nga xamante ni moo di Bambaly sekk nekk ab woykat ñu gis ne rek dafa ñàkk li nga xamante ne nii moo di waajuram bu jigéen ñu di ko ko jaale di ko ñaanal suuf oyof lool ci kawam di ko wax ne ko waa 24 actu yëpp ñi ngi koy jaale waajuram bu jigéen boobulee di ko ñaanal rek bu baax a baax yàlla may ko xolu muñu lii rek moo fi ruusandi woon ci ay xibaar dig daje ba ëllëg ak jàmm